su waxtaan amee waaw ci penc mag ña la ñuy jox cër waa ñu waxtaane ko ah mag TV maa ngi leen di béggee. mag la TV la. roñ muy gaaw. sa nga ñu ñu wax tuuti si si artistes yi tey bu ñuy wax artistes yi tey fii du ñu tudd kenn ku dul Youssou Ndour premièrement tey kan si artistes yi mën dem ba dépassé yu ñu wala tolloo moom Youssou Ndour. waaw muy Waly rek incha rabbi Waly mën naa dab Youssou Ndour incha rabbi ndax Youssou Ndour moom eh, xam nga kuñ dem ba nommer le roi. moo mhm. amatul kenn ku mën a topp sa ginnaaw koo xam ne mën na laa romb. mais incha allahu rabbi xam nga rawante amu ci ku yàlla dimbale ku yàlla yëkkati moo am. Mhm. ndax Youssou Ndour bi mu fii nekk. ñun bi ñuy nekk xale euh, ñu ngi fecc euh, yaakaar naa waa sama moo maamu sama maam daana wax naa noonu daw ba réer loolu ci ngóoral la boobu ñun ñu ngi koy fecc bu ñun dañ ko daan fecc bu sukk suñu suñu omi ci suuf macha allah mooy bi neexoon trop instrument boobu maanaam da doon dégg lépp mais waali man instrument dama ci dama ci dama ci aspiré loo xam ne ndax musique waalo am na ci loo xam ne mën nga ko fecc comme musique américain mhm. yenn saa yi mu tëgg loo xam ne yow bu la neexee nga fecc ko feccu américain boo xam ne doo tëb fi nga taxaw rek ngay taxaw du jar tëb rit musique waali man li ma ciy xëy na li ma ciy xool est-ce que borom sax mi ngi ko ciy xool mhm. te li tax nag man ne dina dina dem du mhm. def maa may juróomi dërëm wala mu dig ma juróomi dërëm wala mu bëgg mu woo ma téléphone non parce que citoyenne la euh, euh, ni koy waxee non non non du euh, li ma yàlla boole ak yéen missionnaire laa ah fansam laa sax ndax bëgg naa waali waali suma doom la yaay la yaay may woowee dama gis mu nekk doom ju am jom ku sañal ku ne jur waali loolu yëpp taxut mais lu ma gis la ci moom fi ma gis mu taxaw taatu géej googu yi am naa yaakaar ne yàlla mën na koo bàddi loo xam ne sax dañ naan déedéet yoon yi mu jublu jinne gi téye loxo ndeyjooram bii lu nekk nag maa ngi ko ciy dégg mais ñoom ñu wax concerné wuñ ma waale yi nga xam ne ci moom laa ko gis moom laa wax dew ma këram dew ma këram pour naan ko nangam dama koy wax publiquement ndax ñi nga xam ne ñoo koy jéemal ak yeneen seetkat yi kàcc rek naan wàlli nangam nañ bàyyi doomu jàmbur te xam ne am na lu ko couvrir sunu borom bëgg na ko yonent bëgg na ko Sëñ Tuubaa bëgg na ko Cheikh Ibra bëgg na ko ay waajuram ñaanal nañ ko li ko yaayam di ñaanal rek mën na ko sauver mais nag yaayam ñaanal na ko waaye yàlla daf ko booleeg ab jinne boo xam ne day téye loxoom bu ma waali woo maa ngi wax ni ma waali boobu ba tey jëluma sama téléphone jëm ko woo wala ma bàyyi ko message non non jaru ko waaw nag nit ñi xam ne Wally incha allahu rabbi sunu borom dina ko yóbbu te mën naa dem ba dab yi suñu duur. ban ban conseil en tant que fan en tant que euh, yaayam. Mm-hmm. en tant que fansam ndax damay déglu damay déglu damay déglu waale ma si yàlla xiiree. Mm-hmm. ndax xale dañuy déglu man damay déglu. am nga man non waaw <laughs> waaw muumin la bi neex na muumin la xam nga loolu ginnaaw moom porte de voix la euh, toppatoo ko muumin la bi macha allah neex na am na solo toppatoo ko muumin la bi rek maanaam maanaam boo dee dégg rythme bi nañ ko xool mhm. waaw am na lu nekk ci biir maanaam fii lay ne bi moom neex na maanaam incha allah te ba may wax ci match yi. lañ ko waxoon ne góor jigéen la. te ma leen xool leen waali waale day doog a comment dina fi génn loo xam ne macha allah ah alhamdulilah parce que mu génne temps yi macha allah te day gën a dem. billaahi woo ma waale sama kër. daraje laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi billaahi barke Seydina Muhammad man seen benn woo ma waale sama kër. billahi wallahi watallahi daraje seydina Muhammad man Selbé Ndom daw ma kër waali utuma ci moom dara képp ku wax ne ko maire bi nangam bu gëmee xayrun bu gëmul xayrun lu ñëwoon la rek ci man ma war a lancer message bi wax ko moom li nekk ci moom point pare naa ci bëggut bëggutuma sax à partir de interview bi wax ci moom mais am naa ci moom yaakaar ñu am na woon yaa ci yaakaar yu Youssou Ndour ñu nekk xale muy euh, Banjoli Njaay ak yeneen yi vraiment ba tey damay déglu ay retro Youssou Ndour sama clé yëpp genn wàll gi yëpp euh, ay Youssou Ndour ju paase la ah. kon am nañ yaakaar ne euh, Waly ñu day topp ci ginnaaw Youssou Ndour bañu ma nag benn artiste keneen ku ma gisoon aussi nañ xam ne dama koy wax su fekkoon te ne damay dem Kër Waale ñu may gis buntu Kër Waale génn sama foto bu ma toogee Kër Waale mën nañ ne dafay dafay dungur Waali man du ma dunguru kenn man dunguru yàlla laa man Selbé Selbé Ndom dunguru yàlla laa dunguru ma kenn man maay dunguru yàlla yàlla laa bëgg dunguru su ma gisoon lu ma sant damay daw su ma nee naaw damay naaw parce que mooy jalla jalaalu mais ku dul yàlla du ma la du ma dunguru mu ñu mën a ànd ci teraanga mu ñu nga jaanee ma jaane mais bu ñu xalaat ne damay dungulu walla wala mooy toog ci télé di ko waxal lu baax waaye xaw ma këram soxnaan mosuma koo gis yaay waale mosuma koo gis baayam daal bi ma amee tolof tolof ndax ay woyam woyu dëggu yi dëggu gi coon sekk dëggoo moo tax ma dem ñaari permis pour dem rendre ko visite te bu ma sañoon keroog du fa fanaan donc ñu jàll ci leneen. ci ci tolof tolof yu yooyu est ce que tolof tolof yooyu xam ne lu si lu xaw xam nga man euh, damaa bëgg la tooñ. ginnaaw nguur gi. Mm-hmm. ñoo ko jàpp yóbbu ko. Mm-hmm. loolu mënuma cee wax mais am naa confiance ci Thione mm-hmm. ndax man xaw ma li muy liggéey ah, baatinam xaw ma ko saayaram li ma woon. mooy dëggu na mën na li muy def macha allah foofu laa mën a yem ci coon mais mënumaa jugé ku ma xamul jikkoom mënumaa jugé ku ma dëkkalut maanaam li tax ma ne waali du góor jigéen deful daray góor jigéen lu ma gis la ci moom kon man du ma ànd ci ñuy wax ne waali góor jigéen la góor jigéen boo ko xoolee da koy xam day wiccax loxo yeeg def ay affaire ah doxewu ko daal waxewu ko te moom affaire jantal men lay wone euh, Baye Fall lay wone euh, macha allah mën a joxe xolu jamaa macha allah loolu laa koy seedeel. voilà mun ma li ma koy tere daal mooy coow bugg moom coow tant coowul macha allah bége rek bége bége bége rek Baye Fall incha allah rabbi rek. je pense euh, euh. dañuy des aussi si si wàllu sport loo loo loo Sénégal équipe bi mu am ni est-ce que mën nañ am yaakaar ne war nañ ko mën indi Coupe d'Afrique. xam nga yaakaar jo doo yaakaar équipe man yaakaaruma équipe pour mu jël coupe bi yàlla laa yaakaar pour mu may ñu coupe il faut ngeen di déglu Selbé. man duma wax ci li neex nit su ma lay seetal léegi maanaam duma la seetal parce que dama bëgg lu la neex non dama lay seetal pour li ma gis nañ wóolu yàlla ñaan yàlla mu indil ñu kub tamal loolu rek laay ñaan yàlla incha allah xam nga li ma ñaan yàlla sama réew mi développé sama réew bu jëm kanam lépp lu ñu suñu borom jox ñu ko man loolu laa gëm gëma leneen nañ tàllal ci suñu borom loxo ñaan ko mu may ñu ndax yeneen réew yi jël coupe yi gën gënu gën ñoo nekk jàmbaar Sénégal Sénégal ay gaynde lañu dañuy dem ba jeex gis nga luñ fi def bii bii paase boobu neex na neex na. lan lan man moom amoon naa ko xam nga ñi ma àndal dafa am góor gi moo soxor moo nekk ci nopp gauche bi jigéen ñi ñoo nekk bu ñu nee suba la match bi ci guddi man amoon naa match ah. amoon naa match. boo ji Seydina man amoon naa suma ko mais góor gi moo ñëw ne ma doo gañe de tegal ma sàkk këriñ mooy coow noonu. du leneen ku wax maa dëpp koo combat maa dëpp dangay fenn dangay fenn. dégg nañ ci loolu. dañuy fenn man gisuma loolu bañu ma kenn kenn ku ne yaa xam nooy tojee sa bopp jinax booy fen yemale ko sa kër ak ña nga xam demal di leen fen mais fen bi bés bu génnee rekk yàlla dina la detteel parce que da fen man du ma toog ma Abdou continuer sama tur bi maa koy waxal ay internet yi sax tey borom site da gis ñu ah li kii nekk mënul dara nekkati Selbé day fen mënul dara am na ku nekk si ginnaawam te man yàlla nekk sama ginnaaw lu tax mu bëgg loolu te doon góor doon jant ñu xam ki moom jant góoru buraaco la yow kii du jant gentleman day bañ di créer fi boppam waaw ab Baye Fall taalib Sëñ Tuubaa dëgg bu bëggee fi jàmbur du doon fenkat naa ab du fenkat la maa ko wax haut et dafay fen su ne man lay waxal benn côté bu fenee affaire am la mais man bu mu demati ci kenn ne leen Selbé maa koy waxal su amee xam-xamam na ko dóoral boppam vraiment jël na sama doom yi mag keroog bi ëmma seen daanoo dafa ànd ak jili ndoom fii wëlbati na jabaram na jël ñëpp man xoolal sama ñaari doom sax mën naa leen bàyyi sama ñaari doom yi ma jur barkati laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mën naa leen bàyyi awma problème boobu no awma problème yooyu man dama dund man kese quinze ans de souffrance man dong man sama doom bu demee su ma neexee duma ko woo waaw man naa xëy mën a dox sama tànk yi itam nit ku baax da am jom jom dafa am solo xam ne sa baay am na jom nga ne sama boroom xam-xam la soo ko dégg ci dara kon yow boo amee jom defal ni say mbokk ni ñu def kër ga rëy na lool mënuñu leen wañ ni ëpp nañ trente personnes ñëppay ñaan waaye kenn déggu ci kenn taxaw ne may waxal diw il faut être digne na digne doon noble faal yi nga li may wax nag lijjantiwuma ci kenn parce que dama nekk ci ma dëgg na adet li wax naa Selbé maa koy waxal waxaluma tous day fenn TV su waxtaan amee waaw ci penc mag nga la ñuy jox cër waa ñu waxtaane ko ah mag TV mag leen di béggee mag la TV la roñ gaaw